Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. syarna lagi alaykum siyaar la yéen si nekk si turam ak santa di leen jox seen di dalal jam nan len dal jam dalando jam am jam si barki Seydina Muhammad daan leen waxtaan bi ci bismillah pare ko ci alhamdulillahi rabbil alamin siyaar siyaar siyaar siyaar siyaar naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen dalal jàmm naa leen am leen jàmm jibi jibilum uh, jibilum si ci continues à faire tes pitres man dama lay e bloqué e. je te donne nag xoolal sa dernier avertissement ko affaire du xoolal on n'est pas forcé de se suivre on n'est pas forcé de se regarder on n'est pas forcé xolal du dégluwante wala di traîner dans les mêmes plateformes quoi c'est pas forcé dégg amuluma amaluma amuluma njëriñ amaluma la njëriñ amalantewuñu njëriñ léegi si nak ça doit être ay affaire de manquante de respect wala se prendre pour des cons D'ing nga ma génneloo gam yaa ngi comprendre te man nak bala nga may génneloo gam je te bloque parce que ay nit lay waxal quoi waxuma ak ay mbam, wala ay taliban di waxuma ak ay taliban di xam nga ay tali ay ay con wala ay mbam ay nit lay waxal donc nak so fi ñëwé bëgg fay nekk mbam bi wala nga nekk fi con bi du lay téla dind nga dem ci mbam bi ñun ñun ñi bokk ñu waxtaan ñu tok waxtaan quoi lool la am luma lay wax vos conneries là vous le mettez là où je pense merci beaucoup. jox sama gaay yi char naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm naa leen dal leen jàmm. ñu commencé waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulilahi rabbil alamin na leen gars yi yaa yaa des choses yoo xam ne ni que man daf may jaaxal toujours su ma koy dégg si sénégalais yi quoi comme lu ma koy waxee rek mooy lu may wax chaque jour moo tax ma naan sénégalais yi souvent c'est comme si ñoo taylu ñuy def wala dañuy tay taylu wala ñoom ñoo am benn genre xolu soxor wala xolu iñaan xolu parlo ba nga xam ni que suñ koy def wala suñuy analyser sa ay analyse day nekk analyse par parparloo analyse u iñaan analyse u jël kenn teg ko si suuf jël ñeneen ñi gënale leen teg leen si kaw ñenn ñi ba nga xam ni que léegi day nuru endoctrinement doctrine wala dictature wala nappe wala ay affaires yoo xam ne kenn xamul na la tey nag man j'avais un peu parlé du cas kër Ngom laa c'est baaba kon Babacar Ngom Sedima gars yi jël ñëpp di wax nit ñi di yuuxu di expliquer sëpp Babacar xoolal di wax di kii gars yee yéen ñemewoo leen lu ngeen di def ñemewoo leen ko billaay wallaay wal kitaabi gars yi ñemewuñu lu ñuy def seen làmmiñ leen ngemboo su dee pour saaga mën na noo saaga su dee pour wax mën na noo wax su dee pour kekkanto mën na noo kekkantoo mais su dee léegi pour jug def gars yi nu lu ñuy def de ñemewoo leen ko parce que tey jii nii su ngeen eh eh eh hurry up. Come on. Come sit your damn ass right there. Sit. Don't move. Fuck. Don't move. I told you. Hey, eh, right Don't move there. gars yi comme lu ma leen di wax ñeme woo leen lu ngeen di def. parce que tey su ngeen tey su leen demee ba mu jarale ngeen tëb di yuuxu si Babacar Ngom Sadiba di yuuxu di kii moom fan la jëlee soixante-dix hectares ku ko ko jox lu tax du ngeen dem àq ji ku ko ko jox ku ko dem nangu si ay paysan dem jël ko jox ko ko kan moo ko ko jox ñemee leen lu ngeen di def mais quoi toujours ngeen wala faire faites vos choses à demi mesure affaire de tooñ affaire de tappale yi affaire de dugg jéem a lijjante di sóob di duul pour jéem a wane ay affaire ñepp xam nañ ko koko jox kan moko jox 70 hectares yi kan da ngeen bëgg kaas la même personne bu joxe 9 hectares yi joxe 200 hectares yu Youssou c'est la même personne mo joxe fe 70 hectares yi légui ñëmé ngeen lu ngeen di def lutax ñëmé wo leen ko lutax du ngeen wax ak le concerné bu fi daw bu fi joxe souf ci diko jël diko passer passeré jël dëkk bi jappé ko un pantin qui fait ce qui lui plaît dans le pays ñëmé ngeen lu ngeen di def ak lu ngeen di wax wax day ag affaire yi day ag ba mu seuss Mais hier, vous êtes là à vous, à vous, nous, retarder sous, le, nom d'une personne ou sous les trucs basiques quoi. Beaucoup de tout un truc ça ah, a wax ané ah, je suis sen Mota Je man toujours man sénégalais. Man ne may xawa suis toujours quoi. Dun may xawa un toujours quoi. je may jaaxal. Bay Fall, tay sa way su démé non Que soit Macky Sall what the fuck, moo ko yëkkati jox ko ko point barre état moo ko ko jox léegi état si yan base loo ko ko joxee si état ana xaalis bu ko ana xaalis bu mu fay état état nax daf ko ko may wala da ko ko lebal ñaata la ko ko état jaayee état ba ko ko jaayee ba pare fan la dugal xaalis bi wee cette putain d'argent béykat yooyu noonu di kaas ba état jaayee suuf si ba pare est-ce que béy état jox na leen dara. parce que état su demee ba jël suufu jàmbur ba jaay ko ba pare war naa am lu muy lu mu ko ti subventionné nit ñi jox leen ñoom lu tax duñ fa dem kaa foofu ba nu xullee ba suuf si dem ba état jaay ko lekk xaalis bi dem ba taw nu ñëw ba tey léegi bëgg a emmerder les gens nit ñi toog bëgg a jug di wax ay affaire mais Baye Fall Baye o oh, foog wax gi foog nu ñeme ko wax gi foog nu ñeme ko wax gi suñ ko bëggee lijjanti du dem ba si yokku gi. duñuy dem ba ci yax gi wax ko lijeenti ko lijeenti ku fofu len len wax len sen affaire de tapale yek sen affaire de tapete di jema out ay kumba am ndaye kumba ñak ndey ku ngeen di jema diw beur bi ak ku ngeen diwul beur bi motax man seni affaire man mënuma koo comprendre mënuma koo comprendre motax man j'arrive pas à comprendre avec ces ces gars là quoi kor Ngom Sedima ñëwul fek nit ñi tok mu nangu souci si yaa ngi di ay dooma kharam jugene ñun sabadola ñong ngi ko nangu fu ñuy jëlee suufu nu nga waxati feeru sa faleen ñoo nu ko nangu ñoo nu nangu lu raw ak lool littoral bi ñoo ngi ko nangu ñoo ngi nu nangu ndey lépp ñu ngi wal koo boole lijjanti ñëw di wax gars yi ñëw di naan ma ay benn baaba Babacar Ngom tey jii ni ñoo ngi wax naan Macky nit ñi nee nañ kan oh, Ablaye Wade moo ko jox mais état ko jox léegi ana xaalis bi ay ay xaalis la ko jëndee parce que joxew nu ko compte bëñ joxew nu ko comme que quelque chose ana xaalis lu tax état demul indemniser paysan yooyu noonu ba ñuy bañ a kaas

ah whatever nee naa la tey jii nii whatever trop loolu nañ ko jaay sa cinq franc le mètre carré wala le hectare lu su munti am daa am ku ko jaay am ku encaissé am ku joxe këyit am ku jox nit ki këyit léegi kooku noonu concerné wu nekk c'est comme tey jii nii nga bëgg ma gëmloo ni ko nit ñëw jaay suuf nu jaay terrain ñaari nit coow li ne kër léegi yow nga bëgg nga tu crois que soo coow su jugee du ñu xoolee ku ko jaay ji woon. du ñu dem xooli ku jaay joon suuf si donc là du ñuy seetaan ñaari ni ñi reyante noonu du ñu jéem a dem jël le concerné qui a pris le le lu nga ci cette terre et qui l'ont vendu à deux personnes concerné bi la ñuy njëkk dem waxal ana ku jaay suuf si waree fa lu mu ko munti jaayee moom mu expliquer lu tax mu jaayee ko loolu lu tax mu joxe ko te après mu joxe ko ana xaalis bi parce que lu mu jaay ñu ko boo daam ñu bëri ñu ko moom ana xaalis bi léegi du tax action dem kooku leen wala njëkk commencé laaj lu tax gars yi ñemewuñu ko da ngeen koy ñemee mais wiiri wiiri gi Babacar Ngom lu ko loo ko wax tooñ ko loo ko wax tooñ ko loo ko wax tooñ ko tey jii nii man su ma duggoon tey jii nii marché ma xam ñuy jaayee téléphone cent mille ak i nangam ñëpp xam na ni que téléphone bu bees tey soo bëggee iPhone bu bees du da ngay dem dem jëndi ko ñaata lay jar mais soo rombee market gis gars yi téy ko nu jaayee la ko cent mille cinquante mille te nga yor ko doo ko jël même su dee souvent sax da xam ni que alalu ndeng la de souvent sax bii nga xam ni que lii du nga koo dóor parce que iPhone bu ñu lay jaayee cent mille wala iPhone onze nga ni que mënu koo jar xam nga ni ko mënu ko jar may dënk mais donc nag wax gi wax gi bàyyi leen seen dof-dof li bàyyi leen seen xel bu ngeen di fooye loolu laay wax chaque jour moo tax ah man sénégalais pour ma comprendre leen c'est un problème coow li day nekk fii nu bàyyi coow li fii dem lijjanti fële nekk di wax ay yeneen waxu daanu sare jël nit ñi bëgg leen say guux ça ne peut pas marcher comme ça sama gars yi ça ne peut comme ça du mom kese yag na ko fay wax nee na len bay affaire bi hectare yi commencé si seigne Bass Abdou khar la len ne khar len du mom kese fi am problème souf nen doxal cool dina claté di ngén gis ni que dëkk yi sax jaay nañ ko même ba si village yi dem nen yéen da ngén gis bi ñu téla yuux nen lijjanti ñu dem bala no dem ñu wax ñu yuusu di tepp di dalaki ki nangam di wax ñu wëlbeutu ko encore ba ko man na nen nen dem nen dem rek goul dé ba légui dess na ñi encore ño feñ iranien yaangi ci libanais yaangi ci nar yaa ngi fi xoolal ay yeneen gars yi ay nit ñu jóge si àll bi comme ñiy toog Sénégal di xaste naan ñekk ngaak ay